gëstu xam-xam te delloo si waat li ci biir njàngaleem sëriñ bi mm-hmm. di jaajëfal sëriñ Mbakke Abdourahman si ni mu tàmbalee wan nu yitte ji sëriñ bi joxoon xam-xam mm-hmm. ci ak rawam defe naa ku ko daan tagg sax jàng ak jàngale ak dëddu adduna ak jaamu yàlla nga koy taggee am na ko waxoon loolu kenn ci naari mm-hmm. ala arbain addamanta fi samani siba ala al ilmi wa taalimi wa zuhdi wa nuski ku koy bakk loolu nga koy bakkee dëddu adduna jaamu yàlla jàng ak mën a jàngalee tax mu taalifi téere ci ron baayam bam di ko jàngali dooma defe naa loolu wane na ak njàmbaar wane yitte jure ci xam-xam ba tax ay téere yi mu taalif te sëñ Moor nekkoon bahrul ulum namiril ma'i mawruda defe naa am na ko waxoon ca bokkam yu baax yi ba muy tagg Serigne Touba muy euh, Serigne Mamar Kan Dingiraay defe naa ci fukki ak ñeent la tagg Serigne bi dañuy wax ne bokk na ci ñi njëkk a tagg Serigne Touba doon wane ki mu doon innal xuruuna bila sunya azimatihim fi raaxatayka maa lian xaadu maan xaadu hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulum namiril ma i mawruda kon bu yitte woo xam ba mu jaral ko joxe mbubbam waaye defe naa it sa amoon na ñetti téeréem yooyu nga xam ne xasan sérif sérif asan mhm. ca paataar mhm. na ni ñetti dërëm bu ko sëñ Tuubaa dee yitte mhm. ci moom mu bindub kaamil ci sellaayu loxoom ànd ak maam Cerno borom daarul ma waxti Seex Masamba Jóob Saam di wër kajoor ak bawal di ko jaay ngir bëgga fay bor ngir xam-xam kenn jëndut loolu wane na ay yitte yoo xam ne amoon na ko ci xam-xam mm-hmm. ba tax ak sàmmoom it yàgg na ci loolu ñuy nettali ci sëriñ Mbàkke moo ranta ci xam ba mu ko nettalee ba sëriñ Mbàkke di wax ak kenn ci kilifa yi mm-hmm. wax ko wax ju tumurànk itam yitte woo ko ba mu ko waxee nu may def ba xam ko wala am ko dana ko wool du moomu sama doom ji bu bilal la ko defe naa ci sàmmoom de taxoon na ba mbokk moomee daggee bantu sa xatu jàmboor ba sànni ko ko ne ko bindal ma ko dana mhm. ko mënumaa bind ci xalima gu mel nii bant bu mel nii bam mu génnee sëñ moor na ko mën naa bind ci baaraamam waaye jëmmi sàkketu jàmboor wi nga laal rek moo tax mu won ko gannaaw ba nungu kon loolu defe naa mooy sàmm googu sëriñ Mbacke Abdourahmane doon wax yittewoo gi ko yittee moo tax mu digle ko defe naa bokk na ci ay bataaxalam yoo xam ne loola da cay soññee ginnaaw ba mu nuyoo ba noppi digle ragal yàlla ak topp sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lam ca tegoon wa amurukum bi taallum taalim li wajhillahi karim maa ngi leen di dénk kon jàng ak jàngale ngir jëmmi yàlla borom bi subhanahu wa taala loolu ñu andi damay faral di wax waxtu wu ne ne sëriñ bi moom luy tax nit a jariñu sëñ bi bind na ca wax na ca xaj na kay ku mel ne mën nga xam ne sa aliwa day gat mën ngaa bañ a xam lam ca jublu mën nga ko baña dégg bu baax it ko sëriñ euh, Fallou Moussa Assane waxee defe naa bu nu déggee sëñ Tuubaa ni mu jàngalee sarti sakku xam-xam ak ki sakku xam-xam yan waajtaaye ko war a tax jóg di sakku ñu xam-xam bu ko yóbbaalee fa mu jëm defe naa du bokk ca ñay lor leen di jàngal ak di yàq fa ñuy jànge kon de xanaa doon na jaadu ne ñi bëgg jàngal ndaw ñi yar leen delloo si njàngaleem sëñ Tuubaa ñu man koo dégg te kat defe naa bu ñu déggoon sëñ Tuubaa dëgg-dëgg manifeste di yàq duutu am lor professeur ba nga lay jàngal du am ndax Sëñ Tuubaa jàngale na lool ndax daf laa wax ne yow mi jóg di sàkku ji xam-xam li nga war a jëkk laltaay ci wuti xam-xam gi ngay wuti xam-xam mooy sàkku ca génn ci réer kon xanaa yow dooy jàng ji xam-xam néewoo damay jàng ngir bu ma mokkalee business ak caaxaan nangam njëkk a génn ci réer ak dundal xam-xam bokk na ci lay tax nit ki mën a euh, am lu muy wut bu ko xamee ba laltaayoo ko man koo yóbbaloo nga xam ne ak it jëfee lam xam bañ koo jàng rek lu jóg nga di ko werantee ka débat te doo ko jëfe gis nga kii dagg mbubam ngir ber ku ko jàpp bañ koy kaf ak moom te léegi la gis borom xam-xam boo xam ne des koy bàyyi xel di ko naw ci xam-xam ku ko neex lëng te ciy tele la koy defee ku ko neex waxal te ciy la koy defee kon wuute nag kii moom li mu jàngale da koy jàngale ba noppi di ko di ko jëf waaye xam ngeen ne sëriñ bi jàngale na sarti sàkku xam-xam defe naa loola bokk na ca sëriñ bi doon ko wax ne bokk na ci sarti yi kiy sàkku xam-xam mooy ba ca jiitu mooy nungoo muñ nga xam ne bu fekkee ne xiif boobu yi sëñ Fallu wax bi ko sëñ bi santaane bañ ñu xiif ca ñoñam it loola lam ci yitu kon mooy mooy mën muñu njàmbaaru ca loola ca gaar ndax sëñ Tuubaa da doon bañ ko bari njàmbat ndax day tax doo am li ngay wut mu ne kon ni gay na ngemeeb xiif rek fexe ko ngemeeb xiif waaye bu ca yem ngemee toog di xaar xam-xam ba mu jaral la bañ a yàkkamti ndax defe naa tan moom lu jamono yëngu-yëngu tan mën mënta lekk te gisul lu lu faatu nan tan di xaare loola nag yow mi sàkku xam-xam na nga koy xaar loolu sëriñ bi du ko ca boole ca short yooyu mu ne bokk na ca it xër ca ni ab dawkat di def bu gisee la muy topp sëñ Tuubaa nee na na nga koy yitteeloo ba di ko dàq yow muy wuti xam-xam xërale noonu mu ne bokk na ci it euh, ca yay taxa loola ne mooy lewet gi muus di lewet ca la muy yoot di ko wut na mu ko bëggee amee di ko sàkku ca dal gaag melokaan yooyu yëpp dala cay war ngir nga mën a am euh, xam-xam boobu kon ngeme coona ni maam ngemeeb sëf mbaam ni ngemeeb sëf de ko muñ kon ndakee wut xam-xam yombut xaw ma am ko nag yomb na am déet waaye wut ko rek yoonu wut ko rek moo jëkk a jafe ngir nit ki mën koo am looloo tax sëriñ bi euh, jàngale loolu kon sëriñ Tuubaa moom defe naa buntu boo laal ci la muy wax moo tax mu digle ko yéen sama ñoñ maa ngi leen di digal xam-xam waaye boo leen ko amee ngeen jafe ko defe naa xam-xam boobu nag waxuma baatinu xam-xamu sëriñ Tuubaa waaye yitte jim def ci xam-xam rek ku def yitte ju toll noonu dana jafe ci def ko ci xam-xam sampi daara defari kàngam ni nga koy xamee mooy bu ne diw mën naa jàngale wala diw am na yitte xoola ñim yar ak ñim jàngal tey jii boo jëloon ku mel ni maam Thierno Birahim jël ku mel ni sëñ Mbacke Bousso radiyallahu taala anhu jël ku mel ni sëñ Dame Abdourahmane Lo ñii nga xam ne ay université lañ ay kenn lañ yu ŋànk xam-xam téye ko te loola dafa continuer ba bisub tey bii fu njàmbaaru xam-xam googu tolloon tey jii boo xoolee doxinu yoon wit loola ci la wéy kon sampub Serigne Touba la ci yitte woo xam-xam kon jërë ngeen jëf ci loolu li ngeen nu ci ubbil jàngal na ko ci loolu nag xam gi mooy tax nu xam sax lin nu wooyee lu mu doon ndax laa yastawi la yaalamuun walazina laa yaalamuun inama yatadakkaru ulul albab loo bari bari xam-xam te xamuloo lampe bi li koy monté ak ni nga koy monté yow xamoo ko kon ko xam du ca yem ak yow mi ko xamut doon ko ne yow borom xam nga ca la ca des Serigne bi woote ne kon woote naa bisub jàng dellu ci sëñ bi la wax dellu ci sëñ bi tiitaange nag dal na ma ci ndax moom ginnaaw dañ ñu fay delloo dama xamut moom lu xew ak lu nu dal ba tax sëñ bi na nañ dellu ci sëñ bi te sëñ bi waxtu mu ne day sàkk solution gis nga bi mu bëggee nu mucc ci ñooñ adduna ba mu koy jàngale dana ida aratumu najata min abnaa dunya fatrukuha lahum fa man wajada minkum fal yabdul wa man lam yujad fala yatlub solution bi ma leen di wax pour ngeen mucc ci ñooñ àdduna boo leen ko bëggee da ngeen leen di bàyyeeg àdduna ku ko am bu mu ko wuti ku ko am na ko ko am na ko génne léegi nag li tax nuy jógee fi ñu doon nekk mooy bu dee ki ko amut fam ne la koy range ki ko am lim ci yor doyut boog lu waay yor mu ngooral la ko looloy indi jafe-jafe yi waaye sëñ bi da caa dolli it ne bu leen waaje wàccaayu seytaane saytaane wàccaayam mooy lu xaraam ak luñ sib gis nga boo solee farogub iblis ruq boo dugg ak luñ la wër wër wër wër iblis dana wëri ba dikk na la forog xaar mooy waral li mu wax nu mu ko waxee li mu def ni mu ko defee sintuwuma ko fa woon njiit laayul iblis laa ko waral sëñ bi nag bëgg noo delloo noonu ci xam ne kon dëgg-dëgg mbir mooy sëñ bi ndake boo ñëwee ci sëñ bi dafa am yu ci tax mucc sëñ mu taxaa bëgg noo dimbaliwaat Cheikh Ibrahima Diop almachan dafa wax ne sëñ bi de ko wéeru ci moom ci muy dëgg ñeent dana la dikke ak texe ak mucc ngërëmul yàlla ak leer ndab yii nag ku ko mas a am ñeent am na ay agresseurs yuy dogale kii tudd bakkan kii du bànneex kii tudd àdduna kii tudd seytaan bu la boo demee ci sëñ bi ba yan la nag moo lay gaar ba ndab yooyee kenn du ko fel boo fexee ba yegg ca ndab ya nag ba toog dala fa am ñeent yu la ca fekkaat mooy dund bu sax dakk di xéewal leeru yàlla ak ngërëmam ak yitteem man laa sa xaqan bihi tatihi arbaatun fawzun wa xufrun wa ridwan wa asraru wa zayalatu ala al aadaayi arbaatun su suun dalalun wa ixwaun wa garraaru wa kaana min fadli mawlaana alkarimi lahu mayrun wa xayrun wa anwaaru wa siraaru yooyu na ku koy wut si defe ne boo ñëwee la ma waxoon la wax mooy sëñ bi dafa dellu ci sëriñ bi pas-pas bu sell ngay jógee fa nga jóg yéenee laltaay lu ne bul dégg rek sëñ Muntaxa nee na nañ ñëw jàngati xaside yi ñay durus ak ñay yëkkati woote Touba nga def ci sa ne kon de occasion la ndax man nam moon naa Touba kon yow wuy si woo sëñ nga nam Touba naa fa war a dajeeg diw defaale ko benn rendiw déedéet mbokk mi bu dee boo ñëwee doo jàng foo nekk mën nga faa nekk bu dee boo ñëwee rajo rajoog seetaana la indi foo nekk mën nga faa toog yitte ji nga war a am mooy boo accès bërëb boo la orienté ba ne la fii la boo fa toogee lu dul farata wuru laa tax a jóg waaye rikk waaye mbokk mi lu riirum riirum durus mi bari bari fexeel ba gi nga man tam miin ko nga fexe ko yittewoo keroog muy sa bis bañ a wane aale wëlbati kayit ngir diw li muy aalu bari na te fekk li ngay jàng du baax sëñ bi santaanewul loolu na sell la wax nu dellu ci sëñ bi ku jóge fi béréb nag te la nga def ba war faa delluwaat ak jëm ca moom doo war doon sa yitte mi ngi mel ni bu ñu nu génnee àjjana tàbbal nu fii te ñu war faa delluwaat circonstance yi ni gàllankoor yépp bu nu defee leneen dañuy gën a tënk looloo tax sëñ bi santaane wuutewul ndaje moo xam ne it dañuy fëx rek da wut ci mooy li ma waxoon daw di di yuuxoog jàppee xaxaloo dama jàpp ne ku am xel ku ne war naa jëkk yedd boppam ne man de defe naa lay tax mu jag man a waaye la tax ñuy delluwaat ci yàlla yi la sabab bu dee juumte la wala rëcc rëcc la man mii maa ko def kon maay war a jëkk a tàggat sama jëm ci yóbbaale bi yar ak i teggin akuk dal ak jëfe ndigalu sëriñ bi te xam ne lu bisu caaxaan du bisu bu ñu fooyee Cheikh Mamadou Lamine <laughs>